mbooloom Baay fall yi nekkee ci réewum Canada ñoo dajale seen addiya ji nga xam ne at mu jot dañ koy indil xalifa général des Baay Faal Serigne Cheikh Jëmb Fall di addiya joo xam ne ren jii xayma nañ ko ci 8 millions de francs CFA di ak yokkute gu mat sëkk buñ ko méngaleeg daaw ndax ñeenti millions lañ joxe woon. liggéey bii nag Baye Fall yi nekkee ci réewum Canada di ko def at mu jot ci njiital sëriñ maam Cheikh fal mi nga xam ne moom mooy seen jëwrin liggéey bu ni mel ñu ngi ko dooroon ci atum 2010 at mu jot nag bu ñuy waajal koor gi la ñuy indi addiya ji jébbal ko ki nga xam ne moom moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima fal ngir mu defal leen ko ci ndogu yi nga xam ne moom la ñuy yóbbul ki fi nekkal sëriñ Touba. délégation bi nga xam ne nag moom lañ yabaloon ñu indi àddiya ji bi ñu agsee ci Mbàkke njëkkee nañ ci kër Serigne Saliou Fall Fat Sow ziyaare ko leeral ko liggéey bi nga xam ne moom lañ fas yéene yóbbul Serigne Cheikh Jëmb Fall. koo mën te mu ànd ak wér te ñu yàgg koo andi yàgg leen fee fekk te yàgg koo yóbbul sëñ bi tamit waaw moom daal lañuy ñuy sàkku daanaka moom nongo moom problème am bëriwut du dul ne na mën a joxe àddiya rek te mu ànd ak wér ak euh, amub njël daal. waaw te dëkk bee ñu nekk tamit euh, Baye Fall yeeg euh, murit ji fa ne yëpp daal sëñ Tuubaa defal leen tawfeex ak maam Cheikh Fall ba lépp lu ñu fay sàkku daal ñu mën koo am ñii ci wàllu kayit la ñële ci wàllu yëngu la ñeneen ñi nekk fii tamit ñii ñu ci ëpp ci waa Ndakaaru la ñu féete doon sàkku daal bunt yi gën a tëjeeku ba ñu gën koo mën a jekk ndax yéen yéen yëpp benn la waaw moom daal loolu daal daanaka ni dëkk bi mel yëpp euh, maam wanaat nañu boppam daal ba euh, daanaka dublewaat nañ ko kon loolu day wan ne yëguñu sax li li li dëkk bi doon doon mel moo tax daal gën a santaat daal te ngeen ñaanal ñi ñu sax si kamit ñu sax ci ñu sax si ba faw rek waaw. Serigne Saliou Fall Fatou Sow santaat bu baax am mbégte lool ci taxawaayub mbooloom Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ci Pastef gi nga xam ne saa su ne ñu koy wane rawatina ci bu ñuy waajal weeru koor gi ñu indi seen addiya ji fas yéene ànd ak sëriñ bi ci yóbbu ndogu yi. ginnaaw bu mu leen ñaanalee nag ci lañ fa bàyyeekoo daal di dem kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ngir fas yéene ko jébbal addiya ji nga xam ne moom lañ xayma ci juróom-ñetti million ci franc CFA. ginnaaw biñ ko jébbalee sëriñ bi. santaat na leen bu baax a baax gërëm leen ci yitte geeg Pastef gi nga xam ne at mu jot ñu ngi koy def ci liggéeyub maam Cheikh Ibrahima faal bi rawatina yokkute gi nga xam ne ñu ngi ko ciy def. ginnaaw bu mu leen ñaanalee nag ci lañ fa bàyyeekoo daal di dem kër Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ngir fas yéene ko jébbal addiya ji nga xam ne moom lañ xayma ci juróom-ñetti million ci franc CFA. ginnaaw biñ ko jébbalee sëriñ bi santaat na leen bu baax a baax gërëm leen ci yitte gi ak Pastef gi nga xam ne at mu jot ñu ngi koy def ci liggéeyub maam Cheikh Ibrahima Fall bi rawatina yokkute gi nga xam ne ñu ngi ko ciy def. sëriñ bi daayira bi Canada la ñu bàyyi yàlla dogal nag ñu doon ñoo xamee ni ci ëpp jàng lañ fa yóbbu nag liggéey ñii njàng ba noppi ñii di yeggale seen liggéey ñii toll ci njàng. am na ñoo xamee ne bi ñu jàngee ba noppi danoo ñibbisi fii Sénégal mooy ñenn ci ñii ak ñenn ñoo xamee ne dañuy ñëw vacances liggéey bi nag yàgg nañ ko fi indi lool def na ay fan ay murit lañu te ay saadeex lañu bëgg a doon ndax li tax ñu sañ a seede seenub saadeex mooy liggéey bi dañ koo tàmbali ba noppi ñu nekk ci gannaaw bi ñu ci nekkee nag wax dëgg yàlla ñoo ngi feddali seen laxataay te lu bari jaar na fi waaye teewul ñu gëm dëggal wóolu sëriñ bi xam ne sëriñ bi moom jëmm la joo xamee ne képp koo xamee ne yaa ngi jaayante moom sama borom dana la defal tawféex dana faj sa ajo ci saa dana faj sa ajo ci baatin nee na nag li ci jiitu ci seen kàddu ñoo ngi lay ñaanal sa borom yàggal la te wéral la te mbooleem looy naar rek nga yeggale ko ci sa tey bakkan ci barke sëñ Moustapha Fall ak Cheikh Ibra Fall ci barke sa sëriñ bu baax bi muy sëñ Mountakha Mbacké liggéey bi tey nag ren yegg na ci juróom-ñetti million ak ñeenti junni ak ñaar téeméer jox nañ ko àddee Cheikh Ibra joxe ko ci ndog yi ñii nag barkeeluwuñu barkeelu ku ci bokkul waaye ñoom kat danoo ñëw ànd ak sëñ bi ci liggéey bi wax naa leen fi ne liggéey bi ngeen fi àndi xam naa ne daanaka rek bu leen seen morom yi fekk si waatee rek daanaka ngeen matal liggéey bi hmm. waaye ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi hmm. nee na ñoo ko joxe fi sabilillah yi addee sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall yow ci liggéey bi hmm. ñoo ngi lay ñaanal sama borom guddal saw fan te wéral la mbooleem say naar sama boroom yeggale ko ñoom ñii nag am naa ci ñoom seede ndax xam naa leen bi ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu ñoo ngi ci sëriñ bi jàpp nañ bu baax a baax wóolu nañ sëriñ bi lool doyloo nañu sëriñ bi léeg leen ci gis ci ñoom ñëpp kenn ku ne am na ay lajaase yu kawe waaye gisuñu ci lenn ñu koy wutit ngaanaay lañ ko doon wut ngir mën cee liggéeyal sañ Tuubaa lañ doon ñaan sëriñ bi bi leen ko joxeet ñoom waruñu sëriñ bi ndax jëf jii tey jii bu doon ñoroon jàng jee foofu yëpp ak ñu ne fii weeru koor wu ne ak ya ci jiitu ñoo ngi koy def kon kenn waxatul bëgg sëñ bi waaye kon ñoom ñii de jar na sëriñ bi taxawu leen jar na sëriñ bi dimbali leen jar na sëriñ bi yiir leen ñoom ñii teew ak ña nga xamee ne ñoo ngi ci bitir ñoo ngi ci Canada gépp te tàbbal seenum ñaq ca liggéey bi te it sa maam dafa wax ne ndogu sëñ Bamba yii képp ku ku ma ci jox lu tolloog tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo tàbbal boo faatoo ma tàggal laaj na te defe naa benn tànk mooy juróom fistin kon ñoom ñoom jëf ji ñu jëf nawu ñu jëf ji de ndax xam na ni lépp yow la ndax xam nañ ni jafe-jafe yi ñu nekk nii ak wàllu tawat beeg yooyu lii buñ ko mënee indi xam nañ ni liggéey bi kat da nga cee tab moo tax ñoo wax la alhamdulilah nee na moom mooy dégg bu baax alhamdulilah kon donge yi ñoom ñoo doon jotal kàddu yooyu ñoo ngi tuub di jégalu lépp lu ci dëng murit bii di wax la xañ na ak sama yéene ci ñoom waaye lépp lu ci jëpp ñoom seen yéene ak seen pas-pas la jaa ngeen jëf jaa jëf nag ku jëfa ko moom ku jëful bokk ci sëriñ bi moo ngi leen di beral aw cant moo ngi leen di beral aw ngërëm dama leen di wax waxee seen Cheikh faal nag nee na yoon daal bu ñu ko dee wax kuy dox a tax ku doxul bokku ci kon nag yéen a ngi dox sëriñ bi nii ngeen def da boon ko bawul da nga yegg ci sëriñ bi rek te seen jëf gii dana bokk ci jëf yi seedeel sëñ Moustapha Fall ak Cheikh Ibra ak sëñ Touba mi waral ndogu yi liggéey bi ngeen fekk sëriñ bi nag day liggéey woo xamee ne sosuñu ko ginnaaw sëñ Touba ak Cheikh Ibra xam ngeen ne ndogu yii Cheikh sëñ tubaa ci boppam moo ko jox ndigal Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima mu ne ko mbàkk mu ne ko damay séentu ay gant yooyu gan laa bëgg nga toggal leen ay reer bi mu génnee mu ni sëñ Bamba de daf may toggaloo ay ndogu waaye ndogu de bi may toggaloo ku ma jox lu tollook tànk ma defal la ci defar gu dootul yàqu boo faatoo ma tàggal àjjana kon na rafet njort nangeen dalal seen xel sëriñ bi nag moo ngi leen di beral aw cant moo ngi leen di beral aw ngërëm mbooleem daayire bi nga xamee ni mooy mboolem murid yi ne Canada gépp te tàbbal seen ñaq ci liggéey bi te bokk ci liggéey bi ak ñu ne ci Sénégal gépp na ngeen rafetal njort dalal seen xel xam ne seen bëgg-bëgg sëñ bi xam na ko te sama borom dana ko def ndax sëriñ bi képp ku def bëgg-bëggam sama borom dana def sa bëgg-bëgg rawat na ngeen xëyee ci kër Cheikh Ibra gi war a gont dem ci kër sëñ Muntaxa kon tey jii jalaal ak jamaal la kon nag na ngeen rafet njort dalal seen xel xam ne boo leen fi jógee yéen ñii ak mbooleem ñu tàbbi ci liggéey bi sama borom dana leen defal fajub aaju ci saayir ak ci baatin jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati wasalaamaaleykum wa rahmatullah bi ñaanal leen sama borom faj seen aaju ci saayir ak ci baatin alhamdulilah sëñ bi ñaanal leen amin amiin ñaan na ko. alhamdulilah. nee na sëñ bi faj sa aajo saa yor baatis mu ne ma ñaan na ko.